mu di dogal goo xam ne nii njuuy na ñu bari ndax amoon nañu jàpp ni tribunal hors classe bu ndakaaru daana di dogal gu tukkee woon sa tribunal bu Ziguinchor ki yor kàddu yi alliance pour la république di APR moom gëm na ni ak dogal bile yoon wane na ni moom moom boppam fii si réewu Sénégal. ñun li ñuy wax mooy sant yàlla dañu amee justice boo xam ni kenn tënk ko mu nekk justice bu moom boppam dañu amee justice boo xam ni am na xàjjat seet am na discernement bu leer. nañu sant yàlla bi nga xamee ni nit am na sañ-sañ bañ a bokk ci nguur àndul ak nguur seq ko nguur dem yey nguur ci tey waaye yey bi taxul mu fés mu sës am na lu ci topp nañ seet ba ci kanam mais li ñu war a sant yàlla mooy na ñëpp nangu ni état de droit moo fi nekk. si lu ñel nag procédure bi ak la sa des bokk na si recours bi nga xam ne nii avocat yi di layal nguuru Sénégal fas nañ ko yéen a déposé ngir gàntal bi la dogal Seydou Gueye bëggul yi yàbbi ci mbir mi. kooku ñiy toppatoo intérêt wu état bi wala ñiy toppatoo wu intérêt ki nu ko seqaloo ñooñu ñooy seet lan lañ ci war a def dafa may yoon loo xam ni ma sàmba taxul ñu bind ko ma demba taxul ñu bind ko yoon yooyu dafa impersonnel et neutre donc yoon yooyu citoyen bu ne am na yoon pour xuusi li mu ñax daal doomi Sénégal yi mooy ñu fonk institution réew mi te di nangu bépp dogal bu tukkee ci yoon